mais maman aussi tamit il faut que ñu laale ci li nga xam ne moom mooy activiste boobu di Guy Marius Sagna ñu koy jiiñ que ne dafa ëmbal benn doomu styliste bu mag est-ce que aussi tamit euh, vie privée Guy Marius Sagna doon nekk activiste aussi tamit war nañ koy euh, wuli pande ni ci ci dëkk bi xam nga damay wax démb ma ne mhm. bëggaguma ci wax parce que amuma lu ma leer te yaakaar naa ne Guy Marius Sagna man guy gi laa koy woy guy gu mag dafa def golo yéeg ci pale ñuy xëcc muy kii ma tuddee ko guy mënuma tur bi guy laa man te guy lay nirool mhm. xoolal dafa am lu ma woote ci réew mi mhm. su defee loolu dina ma bett bett ñu bari kon équipe bi ñuy wax léegi mu mat mhm. te bu fekkee ni am na dinaa woo siit yu bari dama koy ngénte xale bi damay génne xaas bari teg ko journaliste bu ñëw danaa la may cent mille francs mais nag bëggaguma ci wax parce que wóoruma xam nga am na yoo xam ne bul tëb rek wax ci te wóoru la bu ma waxuloon ak aji mm-hmm. duma xam lu bari mm-hmm. bu fekkee ne am na Sénégal léegi ñu génnee juma jaxate surtout yéen nii am na journaliste yu loqati juma pour mu wax te dinañ ko loqati bul sax sonn mm-hmm. euh, Guy Marius yéen ñii foo leen dajeek moom di ngeen ko laaj ci affaire doomam ndax dëgg la wala du dëgg te dina wax dëgg bi bu xam nga du ñaay doomam mm-hmm. benn ñi ngi koy waxal chrétien te chrétien yi kenn xamee wu leen ñaari jabar mm-hmm. kon mooy li ñuy waxal Sonko mi ngi koy ñëw def mi ngi foog bëgg réew mi bëgg bokk ci ñi jiite réew mi mm-hmm. biiral am na lu bari lu muy jàngale kon mais mënaguma ko xas damay xaar ba mu leer ma Mm-hmm. mais bu amee rek ga danaa ko xasee gàcce nag ndax damay xam ne nag léegi nag mm-hmm. ah, jeexal nañ nag bu loolu amee. Mm-hmm. ñu ngi leen di jiiñ lu ne ñu ngi leen koy jiiñ ñoom. xale yi jigéen yi ñoom dañu bëgg a jiite réew mi il faut ñu def ndànk. il faut ñu moytu jigéen ñi maa fii ni Sonko trompé ak ñoom Guy Marius Sagna ñi ñu tëddee yépp ci Pastef bu ñu génnoon rek te yàlla tax wax mm-hmm. sénégalais yi dina dinañu jëli yat gis nga ni ñu def kër jàmbur yi taal ko dañuy taali kër Sonko dina am xale yu góor yu dem taal kër Sonko taal ci Guy Marius Sagna du laaj xale yi activiste xaalisam ba pare ndekete mi ngi doxaan doomu Guy Marius euh, doomu Juma Jeng Jaxate mm-hmm. loolu il faut mu leer pour ma mën ci wax mm-hmm. waaw d'accord il faut que mu leer pour nga mën cee wax ñu jeexal ci point bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy Miss Sénégal 2020 ñëpp jàppoon ne li nga xam ne mooy wàllum viol moo amoon alors que ne enquête bi mu defee liggéeyam jàpp nañ ne li mu doon wax dara amu ci <laughs> ñu gis ne aussi tamit moment mm-hmm. am na ñu bëri ñoo xam ne taxawoon nañu di ko défendre di ci wax ku nekk mu jaral leen lu nekk ba jaral leen sax ba ñu ne dañuy manifester wu euh, ki nga xam ne moom mooy Mamiko aussi tamit euh, yëkkati woon na ci ay kàddu yu ñaaw ba ñu convoqué ko à la police euh, ñi nga xam ne aussi tamit mooy waa ànd sàmm jikko yi ñoom tamit taxawoon uniquement pour défendre kooku tey jii lan nga ñu mën a wax ci loolu tey le fait que mu mu mu mu mu mu accuser ay nit que ne dañ ko violer tey ñu enket wëlbatiku que li mu doon wax dara amu ci loolu tey noo ko gisee benn ñi ma tuddal muy ànd yàq jikko yi muy maam Matar sàmm jikko yi laa la yàq jikko yi la parce que benn mm -hmm. ba Adji Sarr jógee wax liñ ko def mm -hmm. dafa woo alaaj Diouf pour ne ko na aji retiré plainte bi te du doomam keroog ba doomam mm demee ci Saint-Valentin <laughs> ànd ak faram maam Matar dafa tiit foog ne dañu kidnappé xale bi. Mhm. dem police police wër ko ñu ne xaw ma dañ ko fekk ci auberge mu jël xale ba yóbbu Amérique dawale ko farwa mhm. lu tax mu bëgg aji baal kooku yàq jikko yi jigéen ñi génnoon pour miis nu mu tuddati xale bi mm, Fatima John Fatima dama génn def vidéo ni leen same on you guys duggaat leen kenn faalewu leen gis nga ba coow bi ne tel xam nga lu ma image waxuma ak xale bi de xawma ko dugguma ci ndeysaan sama xel mi xam nga lu ma wax farama ko biiral mu ragal ko wax yaayam ni dañ ko violé te xamul kan la man loolu laa xalaat ah. parce que soo dee jànq ñu violé la nga yeewu dinga gis sa slip te xanaa di nga jooy woo sa yaay bu fekkee danga am kilifa dangay joowoo sa yaay ndax xamoo ku la def lii mm-hmm. ñu ne pat diire boobu yëpp neuf mois biir ni mettee mm-hmm. ba mu wusin ba doom ji amaat neuf mois ñu dog a génn dinaay naa te moom sax nee nañ nee nañ amul doom nee nañ amul doom de li mu doon wax ne dañ koo violé ba mu ëmb ba am doom amul doom nee naa la man samay wax du du fanaan dugguma ci faraluma ko dama xas jigéen ñi génn ne leen lu tax ngeen génn parce que a Sonko borom tur la ay ñoñam waa Pastef mbaam ya ñi tekkiwul dara ci réew mi dañuy saaga nit ñi ngeen ragal yaayam dafa dee moo tax kii yaayam a ngi dund ngeen ni moom mu ni dañ ma violé après ma ëmb juróom-ñeenti weer wasin xale bi am juróom-ñeenti weer ñi doo ko wax dama dinaay sama yoon nekku ci laa wax man du ma dugg ci lu ma xamul mm-hmm. duma ci dugg yaayam lu tax waxul bu fekkee loolu am na lu tax yaayam waxul ci doom bu jigéen mm-hmm. boo xamul ku ko viole te teelu ñoo wax sax aussi musuma gëm musuma gëm loolu nag man la gëmuma ba xas ci ndey ndaak ni ko ndax yaa ngi doog a génn parce que kii kenn la comme yow. ba ñu violé Adji Sarr ndey dafa génn ne amul. kii génn moo tax gàcce dal na leen. kañu faral dara amu ci. waxul lu wóor ñu ngi naan amul doom. musu man daal sama xel lim ma jox man musuma d'accord musuma d'accord. jigéen ñi génn ñëpp duggaat nañ ba aji ñëwee dafa demee woon ci réew mi. maa woote mars 27 presse ñëw. ñëpp ragal jigéen ñëpp tiit. man rekk fii ak sama xarit bi ay patra ak quelque sama xarit ñëpp ragal. Mhm. ñoom alimatu jaawara yónnee ñëpp ragal. Mhm. ma wax li may wax ci aji saar ñibbi mhm. te dara xàppenul dëgg sénégalais yi bëgguñu ko dégg surtout genn wàll gi yëpp faral Pastef mais boroom xel yi yàlla waxal xam nañ kuy wax dëgg ku bëggal boppam ak ku wala ku bëggal réew mi. man conteneur yi may def di ko fay muy ñëw fii sama xaalisu bopp te conteneur lu mu gàtt gàtt di nga fay 6000 dollars ba 7000 dollars ay 4 million te maa koy fay ñëw di ko jox <laughs> kër daara yi ak kër kilifa diine yi. te euh, jox ñu ma ko. terrain bi ma jënd ñaari terrain. pour xale yi maa ko jënd sama bopp. li may def ci réew mi. loolu dama ànd ak président Macky Sall dama koy jàppale rek ndax sama mag la ma koy jàppale di def la John di wax bul laaj sa réew lu ma la defal yow lan nga defal sa réew man loolu laay def nii euh, réew mi du duñu fi ñaan lu dul jàmm ju mat sëkk di waxaat rek nii li may tàggatoo rek sénégalais yi mooy di ñaanalaat rek sama sëriñ ba sëriñ Babacar si yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla yokk ay leeram ak mbokkam ya ak rakkam ya soo tuddee sëriñ Babacar sa xel day dem ci ji Abdou mi ñu soxlee actuellement nii maam Abdou réew mi yépp soxla nañ ko actuellement nii yal na yàlla yóbbu ko moom it ci àjjana yi firdawsi ya Euh, di wax sama yaay kala mbayit ñi ngi koy ñaanal ndax moom umu si borom wàññu rek moo dox diggante moom ak sëriñ Babacar mooy togg di ko joxe euh, di ñaanal bépp taalibe seex di wax yàlla nañu ko fekkee santan yi tey di bésu biñ ko joxoon xalifa bi ñu koy wax xalifa yi xalifa yi euh, tey la am santan ñu nit yàlla na ñoom santan waa kay bu ànd ak wér di ñaanal réew mi yépp di wax fii jàmm rek moo fi xaj sénégalais xamul lu dul jàmm nag dañuy fuural rek mais jàmm rek la ñu bëgg di wax président Macky Sall nag jeunes yépp ñu ngi jël seen yaakaar ak seen xel jox ko ko mu gëstu leen mu yokk ndax dañoo am yaakaar ci moom suba rek ma ngay dem euh, nu mu tuddati funjuuñ Mm-hmm. di inauguré waat beneen pont te nee naa tali mm-hmm. day yokk koom-koom ndax yooyu bu paree dina tax buñ doon def une heure de temps mm-hmm. dinañu def trente minutes wala trente cinq minutes euh, di ko ñaanal jàmm yit di ko wax euh, mu inauguré ak jàmm te foofu mu koy def it yàlla na leen yàlla defal jàmm réew mi daal ñi ngi ci ñaan jàmm di ko ñaanalit les defendeur mooy sama groupe boobu nga xam ne ñoo tas ci réseaux sociaux bi di démentir lu ñu bon ñi di wax réew mi ma leen di ñaanal jàmm ndax nag suñu kilifa diine yi barki arxuraan mënuñoo gis kuy président ba yàq xolu biliva yi ñi gëm ba pare te boo bëggee réew mi dangay bëgg suñu kilifa yi fonk leen lool xanaa ñoom it di leen ñaanal rek di ñaanal sëriñ kër mu sëriñ Mansour yàlla na ko yàlla bàyyi ci xalifa bi ba mu raw turandóoram ay fan yàlla na ko yàlla def di ñaanal réew mi yépp nag di wax euh, Coura Macky daal a ngi nii nee na ñaari nit daal euh, mayul benn sénégalais euh, duut ko baaraam mooy sëriñ Babacar ak président Macky Sall barki yonent bi ku ma dégg mu wax leen safaan ma génn man dama ko ñemee assumer ko mm-hmm. te Sénégal li ñu xamul kat mooy mm-hmm. <laughs> sama mag ja jox na may garde corps barki alxuraanul karim ay garde corps nuñ tudd dib mm-hmm. moo tax lu la damay génn di jaagu mbaar man dañ ma dañ ma tooñ sax ndax man dama naroon man génn di jaagu man daf may neex nee naa la senegale yi waa Pastef lu nu ma saaga saaga seen biir biiri xol maa ci ne dañu ma bëgg barke sëriñ baabakat dañ ma fan dañ may seetaan moo tax xoolal xaaral nga xool viw yi ngeen di am <laughs> en tout cas en tout cas kontaan nañ bu baax a baax a baax di la ñaanal yow tamit euh, gudd fan yàlla bàyyi la fi suñu kanam ba ci kanam a kanam a kanam a kanam euh, cher internaute euh, nii lañ koy defee saa su nekk si seen biir émission li ci dëkk bi tey nag ñu dalal si woon ki nga xam ne moom mooy maman Coura Macky ñu amale ay waxtaan yu am solo te xam nañ ne aussi tamit liñ fi waxtaanee yépp dina leen amal njëriñ kon bokk ñu ngi leen di wax rek ngeen abonné si suñu chaîne YouTube Univers info TV di leen ñu leen di indile li nga xam ne moo moom ngeen soxla moom ngeen soxla aussi tamit ci actualité at lépp loo xam ne aussi tamit am na ci fii nga xam ne moom mooy mim réew donc ñu ngi leen di jox nag dig daje beneen yoon at beneen invité d'ici là portez-vous bien au revoir.